boo jàkkaarloog moom yaakaar na doo ko ñaan àdduna de la nga koy ñaan mooy àllaaxira kon kuy dund ci àdduna tamit war nga saa boo xëyee nga ñaan waxtu woo faatoo boo jàkkale suñu tubaab mën la jërëjëf ab taal bi loolu war a gindi ko ndax wax na na kat am na garab goo ne ci na garab googu de ku mu fekkul defaloo mu dara kon dañu war a lu fexe ba bokk ci garab googee lu mën a nekk na bu kenn mu wax na mënta nekk جاورت بالفرخان ربي المهين ملكت نفسي وزازات اللهين جاورت بالفرخان ربي المهين ملكت نفسي وزازات اللهين أقصت من دنيا وزاد للجنة نوري قد وجهت عند الظلمات مدان كفاني الهدى وصدمات مده رسول الله صلى الله عليه في الآله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 te mu nag bi may xutba waxoon naa ne yàlla bu waxee ci alxuraan ji dégguñu mu wax ci yeneen téere yi dégguñ ko mu waxee neneen ñu dégg bu fekkonte ne dafa seet ki mag ci ñun mu jël ko xam nangu fekkoon ki gën a wéradi ci ñun la jël wala ki gën a yées ci ñun nga xam ne bu deewee kenn du ko jooy mu jël ko kon it mbooloo mi duñ fi daje waaye bu seetee nag ñi ki nga xam ne ci ñi gën a digg doomu nekk ndaw ci la bokk bokk ci ñi fi gën a rafet jikko bokk ci ñi fi gën a mën alxuraan bokk ci ñi fi gën askan bokk ci ñi fi gën a taaru bokk ci ñi fi ëpp jàmm ñëpp mun na ko seppet yóbbu ñun ñëpp dañ ko dégg <coughs> loolu rekk la ñun ñoo dañ ko déglu def ko nak ngir mbugal ko mom wala nattu bu ko nara tek ay waaye aduna bi nak ku fi yalla jëlee ku nek su la fekke ci lu neex sa borom war nga ko sant dara nek fi lu dul coono yu bari natt jeex feebar yu jeex njabot bo manul dara do do nga fi am ku fi yalla jele nak tamu la ci li neexon sa borom koko son de jaxle wut itam boko ko ne ko deppal mooy la maa lànk ñun ñi fi dess nak ñoo dessé yermandé ak jaaxle ak titane li ñi fi def nak do rek lañ man dajé ñaan ku ku jara jangal alxuraan la ndax kaamel bu ñuy jang buñ ko fa gisé rek xel dal du yag mu paré to ku ko nango jangal waye jikom yépp ak jëfa jëfam yëpp ci lu ni mel la nekkoon ba tax xanaa li ñuy wax ne rek nit du dara lu nett aw nett li kon kenn ku ne war naa fàggul boppam aw nett wu rafet voilà ku liyaali dañ ko nett li dafa am ñu nga xam ne aaya bu nekk ci alxuraan da banaa naa tañal naa fitnatan li la si na kafaroo li la si na amoon naka la julli di nekkee nattu ci mbokkum mooy koo xam ne bu la wanee ganaar rek yore ne melokaanu nga xam ne day dem ba faaw nit ñi tudd la mooy jëf parce que àla kulli nit ki nu mel ñu wax na ci anamu nga xam ne soo ko tuddee ci nit am bàkkaar comme que nag moom yàlla natoo ko loolu lu jëf ju baax rek lañ ko xam ak jàmm ju bari boo ko tuddee lu baax ngay wax ci moom am tiyaaba kooku kon nekku doon nattu jullit yi waaye suma galaas gi bi ñu fi bàyyi ko ku ak a bëri fitna ku naqari deret ku tàng bopp lu nekk danga ko dégg waaye ku mel ni moom de man mosuma da dëkk bi koo xam ne ni am na beneen lu muy wax ci moom lu dul moo baax xam naa yonent bi daf ne boo waxee sa mbokk jullit ne ko yaa baax lu romb yaa baax ray nga ko ndax cat lay niru waaye bu ñu amoon beneen lu romb ku baax la kon ren ñu mën koy wax ci moom ndax yàlla nag yonent mi bi mu leen di tàgg lu seen maqaama réere mina saali yéena wala moxli si na rek ñu seetla loon te yiw lool boobu rek la yem ak ñoom lépp ñu fi def nag yàlla bugg yàlla neenal mm-hmm. yàlla yàlla nangu ñaan yi mm-hmm. nangu bepp xaraf ci alxuraan ni ko sëñ bi waxee oustaz Basiru waxee ci euh, xatmu bi xaraf bu nekk rek nekk fukki xasana benn xaraf bu nit yëkkati ci alxuraan rek fukki yiw la ci la gën a tuuti minimum ba ci la yàlla di fay buñ ko defee ñetti yoon nag loolu yëpp yàlla doxañ ko ak ñu doon jàng suratul ixlaas nga xam ne ben yon bi rek ñetti yoon rek ëpp na alquran euh, xamu ñaataa ko fi jàng ak ñaata lañ ci jàng ala nabi ak loolu yëpp buñ ko fi dajalee yàlla yóbbu ko ko su boobaa kay kon tey moom wax dëgg yàlla egg dina jot ci la yonent bi doon wax ne dee leen baaxee seen woy jiitu yi ci di amul lu ci lu nit di ñaanal mbokk jullitam lu raw lu gën a gaaw xul wala baax direct lay dem te mu ne ñetti fan lu métti la ndax it ak dunya fii xalaaliha xisaab wa fi xaraamiha iqaab wa fi subuhaatiha itaab wallaahi alazim bala kenn ci ñun du nelaw ci bàmmeel dërëm bu ñu mas a am dana ra dana wax fan la ko jëlee ak ci nan la ko defar ndaw gii ñu yàlla jox fan lañ ko ràppale ci lan lañ ko ràppal ngëm gii ñu wax ne gëm nañ ko lan lañ ci sàkku suñu borom amul nag kenn ku mën a dox sa diggante yow ci ñooñu yàlla di yebal ndax doo fa gis yémi jëm yàlla ak yërmaande ñu bare ay jaam ni yow lay yebal ñoo xamante ni laa yaxsuna laa maa amarum wa yafaluuna maa yu'maruun te kenn du la ko teg nañ bàyyi xel ci li ñuy def nañ bàyyi xel ci li ñuy wax nañ bàyyi xel ci li ñu yàlla sant kii fi génn nañ bàyyi xel ci moom fi mu tegoon tànkam ñu xam ne lii ko dal jomb ñu te foofu la ñuy mujj te xamuñ kañ lay doon soxna yi nañ déggal seeni boroom kër ndax ñoom ñu mën a ànd yar njaboot bi ci yoonu siraatal mustaqim ndaw yi nañ respecté seen waajur yi wallahi lancim kenn ci yéen ku ci ñëw yowmal xiyaam julli nga woor nga naafila nga def nga lépp waaye amuloo sa ngërmaande waajur sa àjjana doo doo lu dul sa waajur jéggal la doo dem àjjana surtout seen seen waajuru jigéen loolu nañ ko xam amul lu nit di def ci kaw bi xataa waajur bi génn àddina sax duñ ko ñaanalul ñaan googu dafa mel ni mu ngi nekk ci di ci fii ci jamono nga di ko mooy ndigalam bu la santee nga bañ bu la waxee nga tontu bu la taree nga tëj koku mo ki wayjuram de te du jog ben yoon sarax ko ben ñaan ñoo ne kep yoon mbokk gis nga dund gi ni du dal aka masa bax rek ngay deg aka bari won alal aka masa am dole katan aka rafeto waaye anaa ku liyaalin màggat rek ba lépp ràpp kenn faale mënatoo dara wala xëy rek dug ci bir suuf yàlla na dafa am ay soldats yu bari nekk foofu am na ci aarifiina billaahi ñoo xam ne ñi xam yàlla ñenn ñi bu ñuy dugg ci armeel yi armeel julli laa wax de waxuma armeel yépp dañuy jël kaala nuuru seen bët ba nga xam ne daanaka duñ gis ndax dañuy xool ba gis ci li ci biir suuf si am na ñoo xam ne ay njàngoor ñoo fa nekk di leen buggal buggal yu métti balaa ñu gën balaa bis benn di taxaw loolu yëpp dara war dugg lu ñaatee mbokk yi nañ bàyyi du du kan kenn kum kumu xottil tubay ngemb lang lay xaar dañ ko bàyyi xel bu baax mbokk mu fi baye baye ko nak fanu yu na lol waaye yàqul du bari lañ xam ci mom wa nag yenn ni defay na du ciat yalla bu ko ciat jiitu ci bamel yalla jéggal jébal képp ko ñaanal walla nga sarax saraxel ko wala nga jaale ko jéggal mbokk julli ñoom fa fekk yëpp ñii dëkkoon fii te génn àdduna ak ñañ fa fekk ñëpp ak mbokk yi fa nekk jéggal suñuy waajur suñu sëriñ boole ñun ñëpp ci jannatul firdawsil aala ni ñu yàlla dajalee fii xamante wuñu woon ca Sénégal ñu nekk fi ay mbokk ay brothers ak sisters yàlla mën nañoo xëy ëllëg yowmal xiyaam suñu kër yi yëpp jàkkaarloo ci jannatu firdawsil aala yal nañu yalla defal jaay sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dégg na kenn ku nekk képp koo xam ne kii ko def nga te doo ñaanal sa yaari waajur yu faatu bu ñuy dund ba leen dimbale faale woo leen bi la waxee doon dëgg yaa ngi doon soxla te kenn mën laa ko kenn mën laa ko ubbal la kon nag nañ góorgóorlu te adduna ñàkk ñàkk solo la ci àllaxira boo jëlee benn alaxira téeméer junni ndax loo xam ne ah, kenn doo faatu doo tawat ñu àñ ña ci sawar sax dañuy ñaan yàlla faat leen rey leen wala te ñu rey ñu dee benn nag ñu ci bàyyi xel bu te def ko ngir yàlla te leen doog la soxla ilaa man atallaahu bi qalbin saliim mm-hmm. di xol bu set xol bu set wécc loolu yàlla ko naan def kon nañ fexe ba rafetal xarit rafetal ànd bi déggoo luy lu baax bu ñu kenn kenn kenn man su ko wax lépp luy lu baax koo ci teg man lépp loo xam ne nga ne baaxul ba ko ko lépp loo xam ne nga ne baaxul rek mun ko man la ñu ko bu dañ xamante na lool ko ko fay juróomi téeméeri araw ëppoon nañ ko waaye mooy ci fàttali ko fu mu wutalee loolu ak baax la ñu ko ñaan yàlla defal ko ñu ko yëpp te defal leen ko may ko ñu lool ba mu leen ba mu leen ba mu leen dimbali ci li mu xam ngeen ngeen leen dimbali ci li nga xam ndax àdduna dem nañ rek la dana gën yëpp imaam ñoo ngi sant bu baax a baax naa nga daan ko waaye bari nañu fa nekkoon ñoo xam waaye daanaka toog kenn ba fàttali ko la ci wala mu woo la téléphone bëriwul ji bëriwul ji te loolu waaye lépp yàlla mbir yàlla rek ñoom taw yi sat lool sat lool ndax lépp loo xam ne nii doomu aadama ko tëb na yàlla may may na ci yàlla may lépp waaye may na ci loo xam ne nii buy seet la war a sant te sant mooy lépp war a ndax sant moo ëpp doole ci jaamu yàlla yëpp jaamu yëpp sant yëpp doole iblis bu ko yàlla ne demal dinaa la yóbbu sawara mu ne ko may ma tuuti rek dinaa dinaa fexe ba ànd ak yu bëree bëri ànd gi nag dinaa fexe ba muy sant waxul duñ julli waxul duñ woor waxul duñ jàng alxuraan waxul yàlla ko sant la bëgg kon nañu sant yàlla sant yàlla ko wax di dimbali sa bopp di dimbali ko def na ko yàlla bëggee ba buñ fi jógee ëllëg te jóge ëllëg ñett xam ne bàmmeel yi nga xam ne imaam wax na ko léegi tàng la gis ci métti métti nag jar a bàyyi xel la te kenn mënu fa ñàkk yàlla kenn mënta muusal mënta ba doo fa jàpp loolu ñaan ñaan loolu jàng-jàng loolu dagg dagg loolu mën dox jot rek da nga jàpp ci bàmmeel te su boobaa boo deful lu baax fii loolu jëmu sa da nga xam ne yàlla yóbbu ba boo defee lu baax loolu jëm sa nag yàlla andi ay ay malaaka yoo xam ne bu ñu lay laaj day mel ne sa waajur bu jigéen ba sa waajur góor moo tax a jox ak yow su ko seetlu bu ñuy doxal kooku bu sell ñu ngi laajal waaye boo ko defoon nag ñoom yebal moom dañu jàll bu sell dañu jàll bu sell dañu jàll ngeen bëgg maanaam laa sant rek parce que wax ji daa am solo te. di leen jàngee ci lu bokk di leen masawu الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم liggéey képp koo xam ne ni yaa ngi fi ci Louis Kintoki gii am nga métti bu rëy a rëy te mbiram bett na te métti na ku ko dégg rek bett na la ndax sëñ Abdul Xaadir Lo nekkoon na jëmm joo xam ne eh, mbaaxam comme ñu ko imaam waxee kenn mënu koo natt foo ko xelaat rek ci mbaax moom passé na foofa wóor na yàlla ak yonent ba ñi nga xam ne nekkuñ Louisville te nekkoon fii yàlla def ñu jógee ko fi dem ci yeneeni pays wala ñu ñibbi Afrika ñu ngi woo ñi sax ci daxsha goo xam ne maanaam waaru goo xam ne waaru nañ ko ci demal Abdul Xaadir ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla nit la koo xam ne ku laawoon biir la nit ku yaatu woon la nit ku bëggoon alxuraan la waaye nit ku amoon jàmm la tam jàmm ñëw te loolu yonent bi ko sallallahu alayhi wa sallam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi jullit mooy ki nga xam ne jullit bu mucc nañ ci làmmiñam mucc ci loxoom te ala kulli alim si Abdul Xaadir ñëpp muccoon nañ ci moom ci làmmiñam ak loxoom kon nit àjjana la nit ku baax la nit ku yiw la nit ku sell la ñëpp a ngi ko métti mbooleen nekk ci dëkk bi ñi fi nekk ñu ngay jooy bisab keroog ku ko yëg rek tiitaange nga fanaane boo bët set gis nga dem jëmm ju baax dem na lool sax waaw yéen na ko mel ci barki yonent suñu sëriñ suñu ustaas lañ fi wax doy na imaam lañ fi wax doy na sëñ Mouhamadul Moustapha Mbacke lañ fi wax doy na ñu ngi koy jaale ñëpp mboolem ku fi teew ñu ngi lay jaale sëñ Abdul Xaadir ñu ngi koy jaale njaboot ak Cheikhul Xatim Cheikh Ahmadou Bamba yëpp waaye ñu ngi koy jaale njaboot ak Cheikh Ibrahim Niass yëpp waaye njaboot ak Cheikh Maam Alxaaji Malick Si yëpp ñu ngi leen koy jaale nit su fekkee ne dafa baax bugg bugg ci moom duy am frontière ci mbooleem kër yi kër yi sëriñ yi fi ne yépp kenn ko ci xool rek da ngay fonne kii moo gën a bëgg si Abdul Xaadir ngir yàlla daf ko sopp ba pare jël cofee la mu roof ko ci xoli doomu adama yépp ñépp sopp moo mu doon ko bu baax استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها ولا وسام ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وغائبنا وحاضرنا وحرنا وعبدنا وعاصنا وتعينا بحرمة الله وصلى على سيدنا محمد وفاتح لما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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بجاه المصطفى عن أمته يا مخرجا عبدك من لمن يديم لرجاء قبل بالإيمان والإسلام بسارات